ñu euh, niñ ko doon defee ñu bàyyi benn xale mu jàng alquran ñu ubbee liggéey bi gannaaw ñaan gi incha allah. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله لكم من منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك yàlla may ko xale bu xale bu lawet falamma balaga maahu saaya kooku bi demee ba bala ba ba ba as buluuxu saayi mooy mat al iktimaal am na mu ni ko doom yaa bu naye inni ara fil manaami anni asbahu fanzur maada tara damaa gént di la rendi doom te géntu yonente wax wi la mu ne ko yaa abati faal maa tumar sa tajiduni insha allah min assabirin waaye bi ñu ko digalee def ko mooy alxudu a tàmm ak a tadhiya fi sabilillah kooku ndaw wane na ko def sacrifice ki ëpp lépp ëpp ñëpp bu laajee dañ ko war a jox lépp ak ñëpp am na beneen ndaw ba alxuraan tudd mu yonent Yàlla yusufa alayhi salaam yusufa ñett am na ñett yu feeñ ci moom yoo njëkk mooy nattu xam nga nattu yoon wi na ay nattu la ndax natt mooy tabax góor nattu mooy mooy fortifier moo mooy dëgëral volonté nattu ci la ñuy xàmmee jàmbaar nattu ci la ñu góor ñi yoon ci Yàlla Yuusufa natt yooyu jaar na ci jaar yi mu rafet rafet rafet natt nañ ko exilé ko doon ko jéem a rey taata ko ca teen ba yóbbu ko ca àll ba dégg nga ñaa quarante gisul ay mbokkam dugg ko ca kasa ba yooyu yëpp mu traversé ko natt nañ ko ci bànneexu bakkan jigéen ñi gën a jekk wut si ko mu ne leen maazallah maazallah ñaar la ci alxuraan yëpp yusufa alayhi salaam moo ko wax beneen natt bi mooy yuusufa bi mu nekkee ndaw yëg ni am na lu nekk ci moom xam-xam mi ngi ci moom dégg nga la bonne connaissance des dossiers la compétence l'expérience droiture et sincérité yooyu mi ngi ci moom lan la wax jox leen ma yëf yi ma doxal ko ijalni ala xasaanil ardi inni xafizun alayhim te booba ndaw la kon am na beneen ndaw ba alxuraan junj ma yonent yàlla Moussa alayhi salaam Moussa bi mu nekkee ndaw ci la dem Madyana histoire bi dafa dafa xaw gudd waaye nekk foofu alquwatu wal amaana lañ fay waree ba mu eggee xam alquwa ci penc male lu ñuy firi pencum laa ilaa mooy shay'un fi unfaati zaat tantafixu fiihi mbir moo xam ne nit da ciy fonki da ciy da ciy yokk boppam waaye bu dee ci lislaam nag ndaw mooy lan doole mooy lan mooy ngi ubbeeku fu fu néew doole nekk nga jële ko fa xam-xam doole la yow kon dugal ci penc mi fu réer nekk nga jële ko fa ndax néew doole la alal doole la boo ko amee dugal ci pénc mi fukki na Moussa loolu la wane bi mu ñëwee xool gis ñaari jigéen ñu xaw a néew dal mu ne maa xatbukuma xaataa laa nasqi xataa yusqi ria wa abuna cheikhun kabir fa saqaa lahuma mu wëggal leen ci wëgg bu rafet moo tax bañ demee ba ca feebar xale bi ni papa yaa abati stajirhu inna xayra man istajarta alqawiyul amin amaana boobu ak quwa boobu ndaw doo ko war a utilise pour pour defar ñëw ci nag pontom bi ci mujj mooy Cheikh Ahmad Sakhir Lo ak ndaw rahmatullahi alayhi Cheikh Ahmad Sakhir Lo dafa dund moment bu métti bu jafe te mooy a nisful awal min al qarn al ishrin boo commencé commencé ci mille neuf cent ba ci mille neuf cent cinquante foofu dafa metti àdduna bi dafa metti wan jafe-jafe jafe am ndax ci la ñaari guerre mondiale tàkk da ko dund dund méttee métti crise am négociation Sykes-Picot nga xam di di na juróomi weer ñuy séddoo monde musulman dox la Osmaniya daanu dégg nga bi ñu ko séddoo jullit yi ñu fuqan ci ñoom lépp lu ñu yoroon kattan ja doole ja pouvoir yépp ñu jël ko sotti leen nag conséquence xeex bi ci jafe-jafe yooyu ñu taal benn guerre seen comme la deuxième guerre mondiale foofu la seen masaxiloo feeñee jimaat al afghan nee na saa yu na gi kukkee yàlla feeñal ab de jant lépp leer muy taxawal lii daan ni ñaan naa sama borom muy muy lii nekk xetlu kaay mi jamono pour mu réussir loolu daa investir ci ndaw ñi ci ñaari point rek ñu tëj ba li njëkk a def mooy waajal ndaw ñi al i'dad al i'dad ci ñett ñett dimension boo xoolee semence loolu ndaw ñi i'dad fikir yi waajal leen ci jàng ci xam-xam bil ilmi wal maarifa te booba mi ngi doon jàngale xam nga ñeent moo tax ñuy jàng ñeent yëpp da koo réussir dañuy jàng pour xam naqara li naalama génn ci ak réer si ma saxee loo comme jàngal bu paree ci yow da ngay denc ak réer yu du too réer ñaareel ba mooy jàng pour jëfee jëfee jariñu te doo gaañu jariñu te doo gaañ kenn. jëf joo xamante ne yàlla dafa koy gërëm naqara li naama la waaye ñaar yi ci mujj da koo réussir réussir bu rëy mooy naqara li nekkoo na da ngay jàng pour nekk bala nga ne naam nekk fa am na foo xam ne bi nii xam-xam du judd du kàttan du daa xam-xam rek moo la fu mën a nekk moom ab dongaam bu paree ci yow yow ndaw li fu ne ngay mën a nekk te boo fa nekkee doo fa nekk nekkiinu ker ak tabaanjal mu zil la déedéet nekkiinu jeexintal la naqara li nu sharika al axir bi boobu daf ko réussir muy al i'dad al fikri ci ndaw ñi beneen indaad mooy al indaad ar ruux yi Cheikh a Sakho daf ko réussir mooy waajal ndaw ñi ci wàllu ruux ci wàllu bil bil imaani wala aqida ci pas-pas ak gëm yàlla gu wér moom sëñ bi fii la jàkka ji nekkoon fi ah, benn mbaar moo nekkoon fii ndaw yi fii daan jullee moom mooy rëddal sàppasi moom ci boppam du du sàppa si ba sàppa si jub léegi-léegi ñu julli takkusaan des mu téye nit ñi di leen waar di leen waar ba timis jiite timis di waar ba gee loolu mooy al andal ar ruux yi ngir nit ki bu génnee foofu dana gëm yàlla dana ko wóolu dana ko yaakaar dana wéeru ci moom dana ko jaamu dana sellal jaamu gi dana xam ne mbir mi sunu borom a ko ak al andal al jismi yi te mooy waajal nit ki ndax al bastatu fi la leen wa jismi al bastatu fi jismi mooy wér ak kàttan moo tax ñu mën a liggéey point bi ci mujj nag mooy Cheikh Ahmad Sakhir Lo ci ndaw ñi daa am lu mu réussir lu rëy rëy mooy feebar yi yi yi gaañe les maladies destructrices daf ko dindi ci ndaw ñi feebar yi nga moom moo bu dalee ndaw ñi société bi day paralysé wu kenn du mën a dem kenn du dal parce que feebar yi ba ca njëkk mooy mu tudd ci ñett ñu tëj maradul istislaam wal inhiyaar wal xuduu li xayrillah maanaam nangu nërmeelu nangu sukk ci kanamu ku dul yàlla feebar boobu saa yu dalee ay ndaw rek penc ma ñu nekk penc ma du dem day day day tëdd ginnaaw beneen feebar bi mooy mënaatu taxalli anil masuliyaat responsabilité yi ndaw yi war a jël ndaw yëpp ni yàcc ni yasar del dellu ca gannaaw kooku feebar penc mu mu jël ndaw yi mu daal seen penc day dellu gannaaw waaye feebar bii moo ci gën a bon xam nga sax da koo xeex ci ndaw ñi mooy mënaatu alquud an nusratil xaq alqoud fi lquran boo ko xoolee lu yaatu la juif yi ñoo ko njëkk a wax idhab anta wa rabbuka fa qaatila inna haahuna qaaidun demal yaag sax borom ngeen xeex ñun ñu ngi toog fii yonente bi am ñu ko defoon ci ay jamonoom toog demuñu ñëpp dem ñu toog yàlla ni ko ñooñu dañal ci ñoom nee leen innakum raditu bil quudi awala marra fa quudu mal xaalifin te ku dee sax bu ko julleeti wala usalli ala ahad min abada kon ndaw warul toog ndaw énergie la ndaw taaqa la xayawiya la vivacité la ndaw liy toog moom demul fenn sëñ bi da ko réussir ci ndaw ñi tàggat leen tàggat in woo xamante ne bi nii parce que dégg naa sëñ wax naa loolu mu si sëñ bi nee na ñaar amuñu place ci àdduna ñaar ku tayal ak ku nay kon boo demee ci am pénc ab société gis ndaw ya toog foo soo xool ñi naan naan ataaya toog di waxtaan ba ba nga xam ndaw kii boobu société boobu amuñu avenir ndax daf daf paralysé wu beneen feebar bi nga xam feebar bu bon a bon la mooy maradul yës min at-taghyiir wal islaah bu ñu nee man ndaw yi gëm ni soppi mënul nekk defar mënul nekk bay boo ñu toog rek xaar yàlla kooku moom feebar sëñ bi da koo génne ci ndaw ñi gëmloo leen yéen da ngeen a war a góorgóorlu nga taxaw te boo taxawee góorgóorlu yàlla dafa la tawfiq walladina jahadu fiina la nahdiyannahum subulana al yas maradun xatir yusibu ashaaba nufuusi ad daifa al munhara fatarka amaama al mushkilat yës feebar boo xamante ne bi nii borom mbakkan yu lott yi yambar yi lay daal daal di nërmee lu ci kanamu kii ba ci des mooy maradu adama siqati billah wa siqati bi nafs wa siqati bil axar ñàkk confiance ci yàlla ñàkkaa wóolu yàlla ñàkkaa yaakaar yàlla ndaw yu mu dal penc ma jeex na képp ku nekk si Ahmad Saxiil woon dana la jàngal wóolu yàlla ku wóolu woon yàlla la lool lool te yàlla kenn du ko wóolu mu lay war ku gëmoon yàlla la wóolu ko yaakaar ko wéeru ci moom xam ni ku ànd ak moom wa man kaana allaahu maahu laa yubaali bi mu defaral ba noppi nag ahyaa fi shabaab moom sama saxir lu def na ci sabab dundal na ci ndaw ñi kullal xiyam al ilahiya mboolem valeur yi nga xamante ne bi nii mooy tax nit ki nit ki nit ki nit ki doon nit ku yàlla gërëm qiimatu siqati billah mooy wóolu yàlla wóolu sa bopp ak qiimatul xayaat al karima al ins wal wal karaama al insaniya dund gu tedd moom ci moom Ahmad Saxir gëmul lu ñuy wax doomu soxna li mu gëm mooy jàng naa ci benn dongaam bu baax oustaz daam xulle macha allah allahuma la adur bokk na ci ay dongaam mu bind ni al ilmu inda alxaja fasaxirlo ilm mirasun insaniyun mushtarak xam-xam ci xam saxirloo ñépp a ko bokk kuñ dàngal mu xam kuñ yar mu yaru kuñ jubbanti mu jub kuñ taxawu mu baax kuñ puus nga nga dem loolu la gëmoon nit teg nit la rek nañ ko taxawu aar ko buñ defalee ndaw ñi nañ am société bu baax a baax a baax a baax bi ci mujj nag mooy qiimatul ata wal juud bi wa tadxiya bi nafsi wa nafis fi sabilillah te mooy liggéey liggéey nangoo liggéey jàmbaar nangoo daan doole teg si tànk ci yoon wi te loo am nga delloo ko nga delloo ko yàlla subhanahu wa taala lii la sëñ ma saxiloo liggéey liggéey ci ndaw ñi ba tax ba tax mu ni ñaan naa sa borom fii nekk xetlukaay muy jamono te réussir na ko yàlla jox na ko ay ndaw yu baax ay ndaw yu jub ay ndaw yu sell ay ndaw yu am xam-xam ndaw yoo xamante ne bi ne fu ñu fu ñu fu ñu ñu ngi liggéey ci réew mi secteur boo dem ci ci développement ci réew mi fekk fa ay ndawam ñu liggéey liggéey ba defat yal na yàlla fay ko yiw yal na yàlla taxawu ñëpp. solidarité ak ndongo yi nekk fii ci daara ji toll ci limu 5497. ñaareel bi mooy jox occasion parents d'élèves ngir ñu mën dajawaat ak seeni doom ñetteel bi mooy retrouvailles diggante ñi nga xam ne mooy ndongo yi ak jàngalekat yi ak ñi fi nekkoon bu yàgg bu mujj bi mooy ñu àndandoo jàngatandoo benn ci yi nga xam ne soxal na société bi ñu jukki ci benn rek boroomi xam-xam doomi soxna yi daje bi ku ne indi ci sa xalaat mu nekk ab yóbbal ba déwén incha allah xam ngeen ne alquran mooy balluwaay bi nga xam ne ci la léppi jullit di balle ci loolu nag comité bi nga xam ne ñoom lañ dénk wàcctaayu daje bi ñu tànn benn thème boo xam ne mooy temu ren bi te mooy dawru shababi wa masuliyatuhum fi xidmati almujtama ala daw il qur'ani wa sunna buñ ko doon tënk ci olof mooy taxawaayu ndaw yi ak seen responsabilité ci servir société bi waaye ci giseenu alquranul karim euh, ñu cëslaayal ko benn aaya mu nekk chaar programme bi comme niñ ko daan defee at mu jot ci lii lay tënku programme bi incha allah gannaaw bu ñu defee ñaan ba pare dalal mbooloo mi fi teew liñ ciy teg ki nga xam ne mooy jiite association bi di président bi di suñu wayjur incha allah dana ñëw def kàddoom nga xam ne mooy cerveau mbootaay gi dalalaat gan ñi e, waxaat ak mbooloo mi suñ ca jógee incha allah comme jataayub alquran la du ñàkk léeg-léeg ñu tànn ci ndongo yi incha allah ñu ñuy bégal ci alquranul karim waaye tamit li fi ñëw ci ay délégation incha allah kenn ku nekk ñu wax ko ci kanamu mbooloo mi niki noonu thème bi ñu tànn dina am ku ñëw euh, présenté ñu thème bi ba intervenant yi bu ñuy intervenir incha allah mën a intervenir ci thème bi niki noonu danañu présenté waat li nga xam ne mooy al waqful islami li mahadi kokki waqfu bi mooy lan ak lan lay taxawee ñi ñu ko denk incha allah ci seen kàddu bu ñu ci jógee incha allah ñu ñëw am na jeneen doom joo xam ne ci doomi daara ji la ci yi mbootaay gi la ñu koy wax wajaahidu incha allah moom it am na kàddoom euh, dana am ñu ci tànn lu mel ne délégation bi jóge Gambie délégation bi jóge Mali incha allah ñu ñëw tamit joxe seen kàddu jóge réew ba réew niki noonu tamit am na benn euh, jataay bu ñu jagleel kilifa diine yi nga xam ne ñoo fi teew seen intervention ak mouvement islamique yi seen intervention ci thème ci thème bi buñ ca jógee incha allah ñu ngi xaar délégation officielle bi eh, dañ leen installé waaye balaa boobu daara ji amaat na yeneen ñaari doom mooy ne li jóge ci ay ndonga ñenn ñi dañoo dem sos ay daara incha allah daara yooyu dana am ku ñëw wax ci seen tur am na tamit ñoo xam ne dañoo tànn eh, commerce ak yaxantu ñoo ñit incha allah danañ am kenn ku ñu tànn wax ci seen tur buñ jógee incha allah ci délégation officielle bi ak la ko composé incha allah euh, mooy kaddu monsieur le maire kaddu ki nga xam ne mooy représentant du gouvernement ak kaddu ki nga xam ne mooy chef de village bi incha allah dina ñëw ci kaddu ki nga xam ne mooy kaddu sëriñ bi. Euh, ñu daal def ñaan waaye balaa boobu rek danañ déglu tamit ki nga xam ne mooy secretaire général bi moom it mu defal ñu bilan annuel ci liggéey bi nga xam ne moom la mbootaay gi doon taxawee kon loolu mooy programme bi euh, incha allah 14 heures wala 14 heures yu des fukki minutes ak juróom ñu daal di yëkkati jataay bi ba beneen yoon kon dañuy woo suñu papa euh, benn Cheikh Lo nga xam ne mooy président association bi nekk cerveau ci association bi.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 li leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah képp ku fi teew fa nga nekk noo ngi la fay fekk li jox sunu loxo tàllal sunu loxo te la wax asalaamaaleykum mbokk mu wax na ko léegi daanaka li ma doon wax yépp lu ci bari wax na ko bu ko defee nag pour gàttal waxtu wi bañ am benn toof tolofu incha allah danañ jëm a gàttal di tàmbali nuyoo di ko jébbal sëriñ kokki nuyoo bi eh, di ko jébbal sëriñ kokki alxaaji Mouhamadou Xabbaan Diop ak mbooleem njabootu Maam Maxtaar Ndumbe Diop mi nga xam ne moo sanc dëkk bii di nuyu itam sëriñ bii nga xam ne moo jiite daara ji di alxaaji Moxtaar Naar Lo ak mbooleem ñu koy jàppale di nuyu maire dëkk bi di nuyu le chef de village di nuyu itam waa Koki yépp ak dëkk yi leen wër di leen jébbal seenu cant nun ñi nga xam ni nooy ñi jaaroon ci daara ji ci année cinquante jëm quarante jëm cinquante nekk fee ñoom ba suñ jot tey sunu tànk musta dañ ci nekk ci dëkk bi ak ci ji kon yéen waa ahlu kokki ni ñu koy aan waxee fa jazaakumullaahu anna xayran léegi nag ngir tàmbali liggéey bi waxtaan wi Cheikh Ahmadou Sakhir daanoo dénk ni fu ngeen di waxee day bu ngeen jiitalee waa kër Ahmadul Kabir Mbay mi maa kër maam Cheikh Mbay rek lu ci tegu baax na sëñ bi wax na ko léegi tudd na leen kon ñu ci dellu si waat rek ngir jox euh, importance kàddu googu sëñ amal Saxit bàyyi loon nu di nuyu xalifa bi di sëriñ Sayar Mbay ak njabootu Mouhamadul Kabir gépp te di leen siyaare ba loolu wiyee daa doon dénk dem naan bu ngeen di wax ñi nga xam ni lii ngeen nekk ñoo ko fondation woon muy ay góor yàlla yu fi nekkoon te léegi ñoom ñëpp génn àddina xam naa ñu fi des bareetuñu ñaar laaj yi jàpp nañ ñoo fi def léegi nañ leen di tudd bu ngi nit ñi xam leen seen njaboot xam nañ daan def ci daara ji ba daara ji mel nii léegi ki ñuy jëkk a tudd nag moo di sunu baay alaaji géej bu Louga alaaji géey bu Louga yàlla na ko yàlla doo yërmande ba mu ci li ñu jàppaloon bi ñu fi ñëwee soppi toppat gi daara ji tàmbalee ci moom la ko yàlla jëkk a jaarale muy 1956 jàpp 58 booba néeg dafa woon na lool la xewoon ci jamono yooyu moo di boo seng mooy ki ko jëkk a daara ji jàppale ko si Ahmad Saxiir ba yàlla di ko musal ci ayu lakk yi fi am ci néeg yi mu daan defar kon alaaji eh, alaaji Géey nekkoon taalibe ci maam Cheikh Mbay noo ngi koy fàttali ak njabootam di ko di fet di leen fàttali suñuy ñaan ci ñoom ci moom ba loolu wiyee gannaawam ay góor yàlla yu baax ñawaat ci année soixante-dix yi jàppaat daara yi jàppale sëñ bi ci dund bi ak ci dëkkuwaay yi kooku ku ca jëkk defe naa ne ñu bari xam nañu ko muy alaaji Maxari Géey alaaji Aatu Xulle alaaji Moodu Seen Ba Silla alaaji Madawas Jóob ca Kebemer alaaji Njaasa Amar ca Mbakke Bawol alaaji Seex Jóob ca Kilmaxa alhaaji Modou Gueye kawlax alhaaji euh, sëriñ sëriñ mu sëriñ Morlo ca Caaroy alhaaji A Taal Tambacounda sëriñ alhaaji Seck ca Ndakaaru dëkk jegeen Samsam alhaaji Tafsir Diouf ca Barñe alhaaji Seydi Seyni Sall ca Yoof ak alhaaji Mokhtar Fall ñu ko xamoon ko ci Fall Mufti e alhaaji Mbay Gay kii nag mooy ki nga xam ne léegi moo fi des léegi mook soxna Marème Lo ca Pikine ñoom ñaar yàlla na yàlla dolli wér te bàyyi leen suñu kanam lu yàgg lu gën a yàgg a yàgg fàttali ñu tam bokk ci ñooñu Adja Sodo Ba dëkkoon ci dëkk bii Adja ak soxna Faati Fall Ndege Assane ñoom itam ci liggéey boobu lañ nekkoon e, bàyyi e, am na itam ku ñuy wax e, bàyyi ma Demba Gueye nekkoon Louga. ak ñeneen ñoo xam ne ñu xëy na mun jotaay bi du jar ñu tudd leen waaye bu ñu tuddee ñii rek bal nañ ñëpp ñooñu ñoo ñi nga xam ni lii ñu nekk tey di leen woo ngeen ñuy fekk si fii ñoo ko yoroon ba bàyyi koo fi bi ñu xel bi ñu nattee suñuy xel jàpp ni wan leen aw ñu wax ko sëriñ Ahmad Saxiir waxtu yoor yor mu jóg ca lal ba mu nekkoon fii ci néegam bii ci buntu kër gi ci buntu daara ji daal di ni alhamdulilahi ba daara ji juree doom yoo xam ne yi jóg nañu fas koo yéenee liggéeyal muy nun ñii keroog maa ko jégataay ba ak ñeneen ñoo xam ne ñi samay morom lañu ci daara yi boobu ba léegi nag liggéey boobu ci la ñu nekk ànd ceeg yéen mbokk yi ngeen ci jàppale ngeen ñu jàppale bu baax a baax a baax daara ji nekk na daara joo xam ne ji lépp lu fa waay def itam e xam nga da nga xam la nga def te boo ñëwee itam da nga xam ne def nañ ko fi ñu yéen gerte loo sant bu baax fu waay maa nekk ci biir réew mi ak bitim réew ngay def ci lu néew lu bari yàlla na ko yàlla ful def ko ci say balance yi eh, eh, rafet rafet yowmal qiyaam insha allah ba loolu wiyee nag ñu ñëwaat ci dëkk bii nga xam ne mooy kokki nga xam ni 39 ak léegi yàgg na juróom-ñetti fukki juróom-ñetti fukki at yi ah, manqué na tuuti wala tegal na manqué na tuuti ma ah, mat na sax ñoom ñooy nga xam nag bu fekkente ni. bu ñu ko nattee ci yenente bi sallallahu alayhi wa li mu nekk woon Màkka ñoom ñooy ansaar yi xam ne ñooy jàppale sëriñ bi daara ji ndax sëriñ bi kat daa jógee ñoom rek ñu yebal ko mu ñëw fii fekk leen fi di nekk nekk léegi muhaajir ñu yebal ko fi fi lay muy liggéey ngir yàlla ngeen wuuf ko wuuf donga yi at yii mu wax ni bari na lool dongo def na fi lu ne waaye yéen itam loolu lépp nag ànd ak yaatu ànd ak ngeen wuuf donga yi di leen dundal di leen sàng di leen defal lépp kon yéen waa kokki ak li ko dëkk ko wër yëpp fa jasaakum laa ana xayran yàlla na yàlla fay ci daara ji ba loolu wiyee ma dellu si nag ci sunu mbokk yi sunu bopp nun nun ñi nga xam ne nooy noo nekk ci liggéey bii di ko def may ñaax yi ci nekk ñëpp ñu gën a takku ndax si Ahmad Saxiir lii mënu bàyyeel lu ne fàng la te ñëpp ko bëgg gannaaw yàlla féetal na moom nag na gën a góorgóorlu gën a takkaat sunu tubéy gën a góorgóorlu jàppale sëriñ bi sëriñ Muxtaar moom mii toog képp koo xam ne kii moomoon si Ahmad Saxiir boo ko gisee mooy moom la meloon la mel ci jikko yëpp nu gën koo fonk gën a fonk daara ji gën jàpp ci jàpp ci liggéey bi lu may jàppoon na ko xeeb te ñuy rafetalante di war a di respecté sunu bopp ak suñu bopp suñu biir suñu biir ak sunu bitti lépp képp koo xam ne yaa ngi ci daara ji di ci liggéey nga ami teggin foo mën a dem foo mën a dem nga xam ne yaay ambassadeur daara ji ngay liggéey liggéey bu rafet di wax wax ju rafet bañ a juutoo kenn ndax Cheikh Ahmed Saxi daan na wax ni naxam moos ah bugguma day dégg kenn koo xam ne ki ci yéen jóge na fi def loo xam ne lii dafa juwandi ko nañ ko nam war a mel ndax la muy tekki mooy bu ñu la gisee nga def dara dañ naan fi kii fu mu jóge kii fu mu jógee ñu ne ah di kooku la jóge boobaa yow dañ lay jéggi ñëw ci daar yi moo xam daara nga yore moo xam liggéeyu commerce nga yor ak liggéey boo mën a yor foo ma nekk nanga fa am comportement diine l'islam li la jàngal fii nga di ko pratiquer taam ak jàmm ñëpp bul ki jóge kenn amal jàmm ñëpp képp koo xam ne kii melul noona ñëw ci yow la nga jàng ca wa isa na jaahiluuna qaalu salaaman jàmm rek jàmm rek ñu leen ci woo di ci woo mbokk yëpp di dellu siwaat nag ñii nga xam ne ñoo fi nekk di jàng ñi fi nekk di jàng ñoom Cheikh ma Saxi daana wax naan yàgg koo dégg bu ma sañoon dégg ku ma jox sa doom dama lay fay di fay baayam di fay ndeyam loolu lañ jiblu mooy ndax ñoom ñoo ma jox lañ ma santoon di ma ko liggéeyloo ñoom ñoo ma jox lu tax man ko ba ma Cheikh Ahmed Saxi Kabir Mbay di yónni fii dafa di andi fii dafa ne moon boo demee nga jàngale ngir yàlla jël ay doomam jox ko alaaji euh, sëñ Sam Mbay ak Jiili Mbay ak ñeneen ak ñeneen Abdou Salaam ak ñeneen ñoom ñëpp ñu ñëw fii mu lam waxoon sëñ Sam mi ngeen dégg muy borom ba xam-xam mag boobu boo demee ci saxiir na la jàngal ba la jàngalee taxawal ak moom ba la jàngul taxawal ak moom taxam ngeen kan mooy sëñ saam bu ko defee nag looyee itam loolu moo war a nekk ci yenn xel yéen yi fi nekk képp koo xam ne kii bàyyi nga am fi doom la nga xam ne de sa doom ji nga fi bàyyi bi nga fi bàyyi muy jàng li Cheikh Ahmad Sakhir bëggoon ci sa Sam Mbaye moom la la maam Amadou Kabir Mbaye bëggoon ci Sam Sam doomam joojee Ahmad ca ba def ci lu rëy rëy loolee moo fi nekk ba tey képp ku fi nekk nekk ci jub nekk ci jub li la def loo nga def ko topp ndigal incha allah boo fi jógee da nga am xam-xam te yàlla dana la jox yàlla dana la jox xam alquranul karim te alxuraan kat mooy lépp mooy boo ko xasee ba am ñàkkatoo dara boo ko ñàkkee nag ñàkk nga lépp kon boog ñuy jàpp ñuy soññaat parents yi ñu dimbaluñu ci xale yi di leen toppatoo ñu toog bàyyi la ñu toog jàng jàng mi yàggul ñàkk jàng mooy yàgg boo ne ba ci daara ji école baa nga ne nga dugg fa ñaata ñoo fi jógee dem jàng ci arab jàng ci réew arab bi wala Sénégal yor seen bopp yor seen njaboot di ay jàngalekat di ay ñeent leen te loolu ñëpp parents yi amuñu ci lenn lu ñu leen ci war lu dul Cheikh Ahmad Saxir moo ci jaamu yàlla sëñ Mataar doon ko ci loolu kon boog noo ngi leen ciy soññi noo ngi leen ciy soññi noo ngi leen ciy soññi sëñ boobu la mu nekkoon démb ci la nekk tey laajul kenn dara ku ko jox baax na ku ko joxul itam mu fay dëgg yàlla liggéeyal fi sabilillahi loolu nekkaan loo xam ne maa ko jox ñi fi nekk di ko jox parents yi ñii fi nekk itam di leen dimbali sëriñ bi muy ñuy jàngale noo ngi leen di sant bu baax résultat ñoo ngi koy gis ci examen yëpp du ko gis ci xale yi alxuraan ji alxuraan ji ñoo ko ci gis ñoo ko gis ci arab bi sëñ bi sax bañ na ko ba léegi fi mu ne pour bëgg njàng mi gën a dox dégg ngeen ci ay xam mu naan bu jàng alxuraan ji doxee rek lépp dox alxuraan ji bu doxee lépp lépp dina dox bañ na ko ba fi mu nekk nii daara ji am na ñu fi nekkoon dem ñibbi dellu siwaat sëñ bi jël leen ëpp nañu ñaar fukki nit sëñ bi di leen fay xaalis ñu jàngal xale yi loolu na ngeen ko xam yéen parents yi suñ baa ngeen koy defal fii sa sabilillah te itam képp ku fi nekk itam moo xam da nga fee indi soxna moo xam da nga fee indi sa doom sëñ bi la yor lépp loo xam li jaadu na ci yow da ko def loolu lépp ngir njàng mi gën a kanam ndax fii alxuraan moo ko fi alxuraan ji moo ko téye Cheikh Ahmed Sakhi daan na ko wax sëñ Moxtaar dem nee na bu njàng mi doxee rek alxuraan ji doxee lépp dox Moxtaar no mi nga xam ne moo sañ joon dëkk bi loolu la fi samp woon dëkk bi moo tax barke booy moo fi nekk ba léegi nuy de nuy sant nag parents yëpp ku fi indi sa doom ñu ngi lay sant ku am loo joxe ñoo ngi lay sant ku loo joxe ñoo ngi sant di ñaax rek yàlla def jàmm bu baax a baax yàlla def jàmm dolli nu wér dolli dolli sëriñ bi wér may delluwaat di ñaaxaat sama mbokk yi ñu gën a jàpp ci mbootaay gi bu baax yooyu dimbali sëriñ bi ndax àddina ku fi nekk ku nekk am na looy def te dara gën dara gën cee yàlla def fii sabilillah nu gën a góorgóorlu mbootaay gi nu gën koo jàpp nu gën koo téye bu baax suñuy loxo boo waa xamante ne yëf yi waxtu yu jot na comme ni ñu ko daan defe at mu ne ñu jóg def defaat nañ ko ren dem ci marché yi dem fu ne noo ngi sant képp koo xam ne kii sa loxo dugg na ci bis bii moo xam foo xamante nekk ci jàkka la moo xam ci association la islamique moo xam ci marché la boo xam ci commerce la lépp lu ngeen def yàlla na ko yàlla def seen balance yi wiiw yowmal qiyaamati noo ngi gàttal yem foofu di sant ñëpp yàlla yàlla na fi yàlla indiwaat déwén ak jàmm te ñëpp koo koo xam ne kii andi nga fi andi nga fi lor njàqare yàlla na ko yàlla teggi du fi indi mébét yàlla ko yàlla fajal yàlla may nu fanu gudd lool ak wér wér gu wér gu yaram ak poos yi boos yi diis ak yawmal xiyaamati bu nu demee incha allah yàlla dugal nu àjjana fa daw ci incha allah ba déwénati